kilifa la. Mhm. xëy na moom kàddoom dana jariñ ñu baree bari ba ñu mën a soppi ji ko muy maam Thierno borom daaru borom daaru nag li koy wër ci jeunesse bi bari na trop mhm. waaw ñi koy wër bari na trop te dama gis mu def ci ñoom philosophie bu ma neex maanaam damay gis ñoo xam ne ay liggéeykat lañu ay faykat lañu ñoom boo leen waxee kan nga yaakaar ñeen la borom daaru lan la leen digal ñu ne ñu ñaar lañu digal jaamu yàlla ak liggéey te lépp lu ñuy liggéey itam dañ ciy teral suñuy wayjur donc ça veut dire que borom daaru mu ngi participer ci jeunesse ci ci société bi di jël jeunesse bi ñi nga xam ne dañ koo gëm xiirtalu leen ci boppam ndax moom bu leen doon xiirtal ci boppam du wàcce boppam euh, wàcce darajaam di dugg ci seen biir di waxtaan ak ñoom ba toll ak ñoom kon kooku xiirtalu leen ci boppam mu ngi nii moom borom daaru foo ko fekk dafay ree ndax dafa bëgg euh, jeunesse bi ànd ak moom bañ a wu. donc waxtaan wax na wax ju am solo ci suñu naataango yi fare ci euh, Sen TV digganteem ak euh, Thierno Birahim mi nga xam ne moo ko doon jël ñoom ñaar ñu seq benn jotaay jotaay bi nag li ma ci gën a intéressé mu jëm ci réew mi kenn ku ci nekk jox na la saw lanc ci lim na ko war a joxe te gaañu la kenn ku ci nekk nag laa wax muy njiital réew mi muy kujje gi muy ñi nga xam ne ñoo fare ci këru diine yi kenn ku ci nekk woo na la nga woote cig dal këru diine yi nañu woo seen njaboot waxtaan ak ñoom ñu ànd ak dal ñi nga xam ne ñoo fare ci ku gi nañu woote cig dal ñi nga ki nga xam mooy njiitu rey mi moom borom daaru nee na na génn di wax ak askanam kàddu goo xam ne buñ ko déggee dina leen mën a soulager wala bokk mu am fu mu leen mën a yóbbu d'abord euh, bàjjan xam nga borom daaru ci ni mu mel mën nañ ko tuddee influenceur moom bokk na ci ñi gën a am influence fii ci Sénégal ndax ku ay ndaw yu tuuti di topp chaque jour gëm la loo wax ñu nekk ca ah nga am ñoo xam ne ñu fës lañu di la topp ku ci mel ni ay abba no stress kooku yaakaar naa ay kàddu moom la solo mhm. waaw soo ko waxee borom daaru day daal di kontaan lu am daf la koy jox abba mu mhm. mhm. koy nuyu bu baax a baax macha allah. voilà borom daaru moom comme li nga wax rek nit soo amee mbooloo mu nekk kilifa nekk mm-hmm. sëriñ. Mm-hmm. soo ñëwee ci moom du la mm-hmm. wax demal fee wala demal fële danaan la toppal say waajur liggéeyal jaamul yàlla ak Seydina Muhammad ma ku la koy wax rek jar nga àndal. voilà kon su waxee rek na ko gaa yi def parce que am na ay mbooloo macha allah te gaa yi gëm nañ ko. su waxee rek dañ koy def. donc bokk na ci kàddu yi mu dénkaane yaakaar naa itam lu lu mat a wax la. mooy réew mi ak fi mu toll ni mu yëngatoo. laaj na kenn ku ci nekk woote ci ci dal. surtout opposition bi. voilà loo tamit dëgg la. Mhm. réew mi instant yi dafa doy waar. li ma mhm. naan kenn xamatul fan nga jëm. la mhm. majeure partie parce que loo gis rek am na exception. ñi daan defar ñi ngay defar ba tey ñi daan baax ñi ngay baax ba tey. mais su demee ba réew bi jaxasoo ba borom daaru daal di génn daal di wax kon ah man selon moi jar na même su fekkee Sénégal ñëpp mënuñoo tase parce que waxin la. ñu daal di changer daal franchement. Mhm. daal di jéem indi jàmm. Mhm. ak salaam. Mhm. daal di rus ndax kilifa su waxee da koy rus. nga ne ah diw kat wax na kon xaar ñu rus ko ndax koo gis rek ku nekk am nga foo féete. ñu ngi kër Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ngi ci borom daar ñu ngi ci Bañes. ainsi de suite. nga ne borom daar wax na même su fekkee ne sax féete woo ci moom kër maam su nga féete mais kilifa la nga ne xaaral man kat ma daal di indi jàmm ak salaam président tamit daal di waxaat ak yi rek ñu daal di indi jàmm ak salaam. Sénégal am jàmm parce que dëkku diine dëkku lislaam la moom la ñu xam jàmm la ñu xam ah teraanga la xam ak kaf ak foo agré boo ko jox yeneen dëkk yi nga xam ne chaque jour dañuy xëy di tiirante te su yàggee rek Sénégal foofu lañ jëm. waaw ah, loolu day yàlla ci yàlla musal. yàlla ci yàlla musal <laughs> voilà mi ngi noonu. voilà Jimbori borom daaru xam naa. waa xam nga borom daaru. ma waxaat la euh, parce que euh, màngo du meññ lu dul solom. déedéet mbay. comprendre mu la mm-hmm. wax naa la suñu maam borom Touba. Mm-hmm. keroog ba Mamor way juram bu góor génn dëddoo àdduna mm-hmm. dégg naa bi ñu tegee miraas mi sëriñ Touba daf ne baal naa leen lépp ba mu des ñaar mm-hmm. Serigne Touba ko wax ñu ne ko ban ak ban mu ne kaamil bi sama baay doon jàng ak maam Thierno rakk ji maam Thierno maamu maam Thierno bi Serigne Touba ko yar ci loxoom mm-hmm. parce nañ xool kenn ku nañ xool maam Thierno ba ko Serigne Touba di yónni ndar ñaata at la am. waxambaane boo déedéet booba ku amoon gone gu toll noonu doo ko yónni. déedéet mais ay mag la fi bàyyi yónni ko kon jaan ju ndaway jaan ju mag bu la ci matt boo gaawul lugg fanaani laaxira mais ñu ñëw ci maam Thierno bu ndaw bi. Mhm. maam Thierno bii. Mhm. est-ce que xam nga maam Thierno ñun xam nga ban jàngat lañu war a def ci moom nii. Mhm, bismillah. xam nga ko est-ce ñu bëri ñu ngi coow nii de mais ban jàngat lañ war a def ci moom li mu war a wax la wax kilifa ku wax la daal li mu war a wax moom moom la wax loolu la wax mais ñi mu koy waxal est-ce ngi def li ñu war a def Aliou xanaa am loo réew mi li tax mu déborde nii ma wax la ko mhm. réew mi du jóg ci déborde maa la ko wax ma wax la lu tax solution mën ma ma wax la lu tax mhm. dama lay wax de déglu ma bu baax fii booy wooteel président justice ñi koy ñi ci nekk kan moo leen di nome njiital réew mi. njiital réew mi mm-hmm. lépp loo fiy nommé si njiit ku koy def. am na ci loo xam ne njiital xoola njiital réew mi rek moo nekk ci ginnaaw lépp. Ah. am am na wala amut. Mm-hmm. léegi nag bu fekkante ni Aliou yaa ma nommé man aliw yaa ngi dégg Aliou est-ce que bu may dóor dinaa la dóor. non non. bi suñ ma nommé est-ce que di nga ma dóor dinaa joteeg yow dara hmm. du ma joteeg yow dara Aliou Aliou est-ce que di nga ma mën a corrompre bu ma askan faloon hmm, corrompre yi ñuy def nit ñi ger yeeg yooyu bu askan bi faloon ger jeex Aliou ñun bu ñu sonal suñu bopp bu ñu rey nit ñi ak wax ju bari soo falee jimboori jimboori fal Aliou Sy fal bàjjan fal Ndeye Gueye mais Ndeye Gueye ñimeew maa songu kon ma wàcce ko Aliou ñimew maa song kon ma wàcce ko bàjjan ñimew maa song foog ma wàcce ko Aliou ñun ñoo ñoo war a fexe pour yeewu Aliou bëri na ci luy coow ci réew mi chaque jour ma ne la Aliou liy coow ci réew mi du coow ñun ñun dañuy ñëw jox benn Aliou si dëkk bi après toppaat si Aliou si di ngal-ngali munul nekk gis nga fu toll nii kaay ma wax la dara réew mi ma wax la dara doo leen jóg ci xiif maa leen ko wax. doo leen jóg si jafe-jafe Aliou réew bu fekkante ni li muy dundee ci moroomu réewam la ko wékk doo jóg ci xiif produit yiy dugg fii Aliou. Mhm. lu tax gars yi mënuñu ko wàññi wax ma ko. lan moo tax. dañ ko pour daa da nga naan fii lañ koy liggéeyee waxal am na yu ñuy liggéeyee fii yu seer lu tax nga naan fii lañ koy liggéeyee te wàññiwuñ ko jaaxal na la wala jaaxalu la. bu baax moo tax ma lañ parce que lañ koy liggéeyee ñoom bitim réew lañ koy jëndee. yow yow bàyyoo ko fii jox leen ko. bu bu yokkoo ca bitim réew Aliou nan lay def fii. day seer fii Aliou bu may liggéey bant te bant bi si réew mi laa koy liggéey di ko jaay waa réew mi mais matière bi tax bant bi formé maa ngi koy jëndee ji Europe di ko indi Aliou mais yow bu ñu yokkee Europe du ma la yokkal. Mm-hmm. baax sax waxal aliw léegi lan nga war a def Aliou kon léegi li ma la wax am na wala amul doo jóg ci xiif Aliou. mais nag état bi mu ngi def lu mu mën. ci uh-huh. subventionné yenn yenn kii. déedéet état dafay dafay bañ bañ ñun ñu xoolat pour pour loolu du état moo ñu xiifal de. bañ bañ lu kay baax waa xaara xaara. état dafay bañ bañ ba pare état liñ ko yan àttanu ko. xam nga est-ce que xam moo ñu xi moo ñu xiifal. déedéet état xiifaluñ de. dan da ngay déglu ma wax la dama ni état liñ ko yan lañ àttanul. Mm-hmm. parce que xam nga lan la il faut Aliou ñun ñii état bi tamit. gis nga li ñu paasee dem di wuti ndimbal am na ko xam ne buñ ko ko joxoon weer wereen déwén yooyu bëri ci dëkk bi rek ak lu bëri wàññeeku. kon loolu entre nous la. ñu entre nous état ak ñun ñëpp a koy waxtaane dem ca dëkk bee daa di bàyyi am na matière yoo xam ne ñun ñu liggéeyal ko suñu bopp joxe ko ci réew mi jaay ko usines yooyu usines yooyu liggéey loolu ci réew mi wàññil ñu. Mhm. mais dangay naan dangay ngay naan suukar fii lañ koy liggéeyee lu tax wàññi luñ nangam fii lañ koy liggéey lu tax wàññi lu yaa ngay déglu Aliou. Mm, mais waaw léegi loolu ñuy dunde ñun lépp mënuñu cee wàññi dara ba pare yow li ñetti pàcc ñaari pàcc nga def genn wàll gi ngay dundee yépp bitim réew lay jóge ñëw boo demee ba fekk réew muy guerre nga fay ñaani ndimbal Aliou waroon nga yedd sa bopp te ba pare li lay comprendre ni sénégalais ñu si bëri du ñu xalaat léeg-léeg da ngay gis cinquante booy yore benn leetar di wër Aliou si pour jox la ko pour nga dimbale leen. <laughs> waxal ay mouvement nawetaan ay mouvement association affaire benn leetar boo compté ñaata booy koy yor ànd ak seeni jigéen ñu sol ba jekk nee nañ dañuy seeti waaj am yaakaar si waajooju rek tamit jimbori côté boobu déedéet technique laa la wax cinquante personnes mm-hmm. cinquante personnes bu nekk deux mille deux mille ñaata la bu demee waa ji cent mille lay génnee jënd ci cinquante personnes yi parce que cinquante personnes yi bu leen mayee cent mille cent mille yi léegi lu ñuy gis ci bët la duñ ko seddoo loolu noonu day dugg si seen biir xel convaincre leen yeew leen te duñ ko yëg bëri na ñu ñu yeew lañ leen buum gi ñu leen yeewee comme buumu faalay la nekk mais nu ñu faa jóge te liñ la yeewee du dara déglu ma bu baax xam-xam laa lay wax de. Mhm. yaa ngi may dégg wala déggoo ma. baax a baax cinquante personnes indi benn leetar ci Jimbori pour Jimbori jàppale leen mais deux mille deux mille bu ñu ko defee cinquante personnes ñaata la. loolu sax jàll na ma wax la développement ci cinquante personne mhm. menuisier nga fa maçon nga fa yaa ngi dégg vulgarisateur a ngi kii xoola maçon bi na jox menuisier mu liggéeyal ko lal menuisier bi na jox mason bi mu liggéeyal ko këram développement ñëw. Mhm. da ngeen di ànd yeen ñëpp nekku leen benn yaa ngi dégg dem fekki ko xam ni bu leen gisee nag daani ni ay eh, wàtteel ma chaise bi dugalal leen ma ci saal bi ma ñëw waa ji moo lay jàpp dundee la moo tax Sénégal da ngay gis un semeur milliardaire. Sénégal la am xool suñu xel yi nii man léeg-léeg damay gis mbooloo gis naa mbooloo moo xam dañ doon ñaan ndimbal mag arrêté leen Aliou xoola lii rek laa communiqué ak ñoom ñu wàññeeku. Mhm. man naa ne leen gars yi ñu naan yi rek ma fooree sama yooyu may def ma ne gars yi foo leen jëm mu naan lettre ma naan leen lettre boo leen ma ko joxoon sax nangam nangam bis boobu dama toog ak ñoom wax ba léegi fu ñu dajeeg man ne ma doo ne ma nangoo li ñu waxoon ci lañ nekk ci waa ji waa ñaata deux cent mille wala cent cinquante mille la lay jox. ñu naan kees gi am na cent cinquante la moo sa bopp kees gi am na cent cinquante mille moo lay yeew cent cinquante mille yoo xam ne doo ci lekk doo ci naan doo ko jox sa jabar duñ la sédd. doy na waar en tout cas. Euh, borom maam Thierno. waaw lu mu war a wax la wax. waaye ñi war a jëf ñoo jëf. duñ jëf. non ñëpp mënuñu jëf nag c'est impossible kon Sénégal dina yéex a développé. dafa mel ni Youssou wax na ko ci waayam boobu mu naan exodes nee na ñi war a wax buñ dee wax ñi war a jëf toog di xullee. ah jëf du am de. ci waayam boobu mën xam nga kii li mu wax nii ba pare gis nga ni ñoom ma maam Thierno ak euh, sëñ sëñ kii naka sëñ Abdourahman sëñ Abdourahman Mbacke. Mhm. gis nga ñuy dem foofu ñuy dem fekk ji leen. xoola ñoom lu ñu mën si seen doom yi suñ ko mënoon ci seen buñ lu ñu mën ci doomu ña fay ñëw. Mhm. soo ko mënee si sa doom du fa ñëw. kon kay ñoom ñoo ca dee. am na wala amul. wax dëgg yàlla comprendre nga li ma la wax. Uh-huh. ok parce que gis nga bu sa doom réeree fexeel nitu yonent yàlla Muhammad for ko rek. ku ci mel ni kii. yaa ngi dégg parce que tey nga man de bu ma doon wër sama doom gis ko ci maam na wala ma gis ko si Abdou Karim Mbacke. Uh-huh. wala ma gis ko si keneen ak keneen wax dëgg yàlla damay kontaan nag. Ah, mais léeg-léeg ngay wër sa doom nit nga baal ma ci wax bi nit wër na doomam ba tàyyi wax dëgg yàlla fekk ko fu xam ne. xam nga lu ma lay wax mhm. bare naa ñu wala nga koy woo mu naan la yow yaay kan xàmmeetu la waxal. am na ku ma ci kon bu suñu bu ñu suñu doom naree rëcc dem ci ñooñu. Mm. yal na dem ci maam Thierno. Mm. yal na dem si Abdourahmane Mbacke. Mm. yal na dem Tiwaawoon yal na dem ba si ah, baay gis nga ñun dañoo am lu xam ni am xamuñu ko Cheikh Maay barki démb li mu lijjanti gis la ko. xoola mag ñi mag ñi gis nga diplomate mag ñi bi ñu koy lijjanti booba ñun booba ñii newuñu fi. dëgg la. booba ñii newuñu fii ba pare gis nga ni ngay gis ni mag ñi bi ñuy tëral lii nii nii xoola di tëral di ko yu naay gis. Mm-hmm. accident de travail. parce <laughs> que nekkul mbaa mbaake mbaa. bëgg naa la 4 millions. Ah. Ah, xoola booba ñun xoola ñëwaguñ fi mais ñun dañoo ñëw fekk li fi newoon ñu yàq ko.